maa ngi lay fay. fan nga xanaa laa jóge. Tiwaawan waaw. Tiwaawan ba fii ñëw di jaay salade. di jaay salade rek di am rek. Ah. ak sunu njaboot. salade ji fu mu toll prix yi. bi cher na trop. ñu ko jëndee seer na paas seer na. paan ñaata. ñu ngi jaay paan ñaari junni ñu ngi jaay palaa ñaari junni. waaw ah. palaa ñetti junni. ñu ah. ñëw mënuñu koo am fii. palaa lu nu wax rek ñu ni cher na mënuñu palaa plan bi benn paan lay doon. benn plan ngi nii mi ngi nii paan benn paan lay doon. xanaa rek os ci àq rek. mi ngi dox mi ngi rek. Hmm. fu ne dafa taxaw ji da ñu. mais Ndiaye mu a ba tey ñu ngi fi nag bagage yaa nga ne dara demagul nag. baali jar bari na. ah ba réegul nag de moom. te dese ngeen. <laughs> ah nanu moom. naka ngeen koy denc ba du yàqu. xanaa muur ko defar ko am jekk rek. teg ko ne ba suba buñ xëyee defaraat ba mu jekk raxas ba mu set mu defaraat. ñaata fan lay am soog a ma. ba mee ñaar fan yàqu ñaari fan du a passé sax ñaari fan fi ne nii sa li bari na bari na na ah dañuy waslu àq rek waaw hmm. ah, dañuy waslu àq rek ak njaboot gi rek loolu ñu ñaan ba xam rek yàlla dimbali ñu ak borom màggal gi hmm. mu jar ci jàmm ak salaam ñu ñibbi ci sunu njaboot yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit ñun ñëpp ñu jaral Tama. tamaate ñu ngi jëndee kees gi ñetti junni hmm. ñu ngi jaay kilo 1500 di négocier léeg-léeg ñu wàññilu léeg-léeg ñu yokk la comme koomb ñu ngi jënde kilo 600 di jaay 1000 francs léeg-léeg sax doo ko am da nga koy delloowaate ndeyam. naana gis naa naana naana ñu ngi jënde plan 5000 ay 100 francs la ñuy jaay 200 ñun daal wóobuñu dara daal ku ñëw ni ñu jaay ñu rek ñu jëmbi rek ñu jaay leen. mais daal bu ngeen bala a dem dina jeex. waaw incha allah bu jeexul sax ñu wanteer ko noonu wala ñun dendee rek ñu may leen ko ñu ñibbi. Hmm. waaw. amul fi benn jafe-jafe à part. ah benn jafe-jafe moom. amaguñ fi benn ñu ngi toog toog bu yaatu ñu yu ñu juuti dañuy jaay ba ngoon dem tëdd nelaw. ba subaat ba subaat ak jàmm incha allah. Ah. Touba jaajëfe sëriñ jërëjëfe sëriñ Touba jaajëfe sëriñ jërëjëfe sëriñ wax leen jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba wax leen jaajëfe borom jaare jërëjëf Touba jaajëf Serigne leen jaajëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaajëf wax leen jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaajëf